mooy amnistie bi. Mhm. mais bi ñuy xool amnistie bi man tey su ma jege président la république. Mhm. Euh, moo tax damay xalaat ñiy jege kilifa quoi. Mhm. pouvoir ñi koy jege yal na yàlla def mu nekk ñu xam ni. unité waaw ñu am ubbeeku moi je me rappelle du temps de mon grand-père Ablaye Wade. je disais ah ñu ko waroon que jàpp naa ni maa nekk gën a bëgg Ablaye Wade yéen. bi ñu koy gëmloo ni tu mets 40 pour cent dans le mu ñëw naan ko non non loolu mënul nekk ñu may pousse. ñenn di ma attaque je disais yéen maa leen gën a bëgg kii. Mm. Macky il a fait des il a fait des il a eu des acquis ñëpp dañuy wax bilan matériel mais qu'est-ce qui risque d'arriver mooy bu fi jógee loolu yëpp dafay suulu les gens vont retenir simplement que moom moo tax pour la première fois ñu perturber suñu calendrier électoral. Mmh. pour la première fois. le dernier dimanche du mois de février réussir luñu ko te histoire dana retenir que Macky mooy def. Mm-hmm. et si risque loolu mën na suul lu bëri loo xam defoon na ko et donc ça pour ñun euh, doyen Albert wax na ko il n'est jamais trop tard pour reculer parce que kilifa muy yow fi nga nekk sa kër mm. muy man yenn saa yi am situation boo xam ne mm. dellu ginnaaw ngóora la da ciy gën dellu ginnaaw yenn saa yi day nekk ngóora mm. les gens vont te respecter davantage parce que boo xoolee li ñuy wax si loi de euh, loi si bi nga déglu askan wi dafa mel ni ñi koy soutenir néew na loolu sànq wax nañ fi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñu tooñ te ñu conscient en victime rejeté nañ ko l'opposition bi ñu ne ñenn ci ñoom ñoo ko moom de manière publique rejeté nañ ko ci biir parti au pouvoir gis nañ ñu bëri ñoo xam ne rejeté nañ ko. ci gouvernement de manière li nga wax dafa am solo. waaw waaw non publiquement devant tout le monde. waaw ñoom dañoo rejeté. la société civile la société civile rejeté nañ ko. donc cette histoire de loi de de loi mm-hmm. d'amnistie pour ñun war mm-hmm. mooy. su ma jëlee toujours casquette éducation euh, doyen Abel man damay ñun dañ ñoo jàngal li wax gestion axée sur les résultats lépp lu may def dama naan lan laa si jublu lan laa jub lan la président Macky Sall wax boo xoolee euh, euh, kii loolu ñu tuddee seen les motifs qui ont été qui ont qui ont été relevés exposé des motifs comme il l'appelle nee na li mu si jublu mooy apaisement. Mm-hmm. loolu la jublu ci ci loo ci loi d'amnistie bi intention mooy apaisement. Mm-hmm. donc ça veut dire que est-ce que. débat bi ñuy dégg tey ak cool yi am ñu yóbbu subaa bu ñu ko voté mu am apaisement. Hmm. bu ñu deful ndànk déet tooy Albert le rappelle. ku moytul une bi biir assemblée nationale mën na fa am cooloo xam ne indi apaisement. Hmm. ci askan bi que ñu si àndul y compris victime yi d'accord ci lu indi apaisement kon nag bu fekkee par les résultats ngay réfléchir par les résultats ngay defee ay proposition de loi tu dois te dire que xëy li ma si jublu du ko ci atteindre hmm. donc c'est pas pour ñun aspect boobu dafa am solo majorité loolu aussi ci changement de paradigme yi war am suñu réew la hmm. est-ce que forcément le député parce que dafa bokk ci parti wu Birama par force li mu bëgg da ko war a voter il faut ñu changer de paradigme on parle du député du peuple hmm. peut-être que demain aussi dafay nekk un excellent moment pour ñu apprécier waat loolu hmm. est-ce que ba léegi nous avons des députés du peuple ou alors nous allons des députés de l'opposition yi nga xam ni même lu baax duñ ko voter ak des des députés du pouvoir loo xam ne même lu askan bi bëggul dañ koy voté donc loolu dafa nekk ay interrogations yi nga xam ne les gens sont mis à l'épreuve mmh. ensuite dafa am beneen citoyenneté boo xam ni dootuñu citoyenneté boo xam ne dafay nangu acteurs politiques yi moom leen booy xool xoolal dafa da ngay def analyse u membre aar yi aar suñu élection aar suñu mmh. beneen catégorie membre moo fa nekk mmh. ñun doon tàmm di gis ci champ politique bi tey li dama nga lire rek les organisations membres qui sont oui tu te dafa am beneen dafa am beneen type de membre boo xam ne tant laa na ñu woon le cœur mooy fondement bi du ñu woon jóg ils étaient dans le dans le bas à bas mais aujourd'hui am na fooy laalee fondement bi doo xam jóg bi ba fan la jëm mën nañ la bett nag mm-hmm. mën nañ la bett parce que ah. askan boo xam ni wax lay gën a def que jëf ñooñu bis bu ñu eggee ba nga xam ne fees nañ xëy na bu ñu yëngatoo ah, mën nañ jóg fu ne mm-hmm. moo tax yenn saa yi damay lire damay gis ci TikTok quoi wala ci ay Facebook Euh, booy di bind seen euh, benn benn son bi ñu tàmm def quoi ay ay want problème. Hmm. dama bëgg problème. ah oui ah oui cest dire que koo xam ni euh, chaque fois moom day day wër problème quoi. Hmm. boo xool dëkk yi ñu doon def amnistie yi am coow lu ci bëri dafay am benn niveau de crise bu sori bu war a tax ñu jàpp ni à un certain moment il faut ñu boole mais est-ce que Sénégal toll na ci niveau de crise boobu bu ñu wax dëgg. dafa ñun on a l'impression que. dañu créer cette crise c'est utopique Euh, crise yi yenn saa yi mu nekk sax crise ethnique ay waaso. Hmm. ñi yeeg ñi est que Sénégal da koy dund. Sénégal dundul loolu. mu nekk crise ci ci ci ci religion yi. Hmm. ci chrétien la ki musulman la est-ce Sénégal dundul loolu. xamul loolu donc tey dafa mel ni amuñu ko de. crise bi nga xam ni moom la nit ñi ragal ñu dund ko nag en réalité dafa mel ni ñun ñoo ko bëgg ñun ñooy. créer ñun ñoo koy créer.